salaamaaleykum dara leen ak jàmm ci Xarala Academy euh, gannaaw ba ñu gisee naka la ñuy créer tutoriel léegi tey dañoo ñëw ngir wan leen tutoriel bi nga créer pare boo bëggee def ay modification wala boo ci bëggee soppi dara naka ngay def da ñëw fii duggaat ci application bi boo duggee fii am na fu ñu def comme photo bi nii foofu ngay dugg moom fi ñu def vidéo bi ngay dugg comme bu dee vidéo nga bëgg def modification léegi boo duggee foofu. Euh, mën nga bës comme fii nii comme vidéo bi nga soxla comme tey bii laa def ma ñëw fii pour ma changer tour bi tuddee ko test 1 léegi bës foofu bu ma bësee test 1 pare damay ñëw fii modifier la vidéo nga bës fii cliquer léegi ban vidéo nga bëgg modifier mu nekk euh, bii nii ma bës léegi vidéo boo koy modifier mën nga si def lu bëri comme bu dee bi daa am ay pàcc yoo xamante da nga bëgg dagg wala bëggoo mu feeñ ci mën nga bës découper la vidéo comme par exemple euh, euh, lii neexuma comme lu mu jëli mën nga ñëw fii nga koy dagg boo daggee rek fi ngay bës boobu noonu léegi xam na vidéo wàññi naa ko léegi léegi beneen bis topp mooy bu nekkee da nga bëgg dagg dara ci digg bi retirer le millier l'opération supprimer de la partie médiane la vidéo supprimer la modification de découpé nga ni confirmé. léegi nga xool fii Mais comme lii laa bëgg dindi stockage interne bi nga bës mu dañ léegi loolu boo liiree vidéo bi doo wees fekk benn pàcc bi bi si am solo tamit muy ajouter de la musique comme léegi boo bëggee ajouter benn son ci sa vidéo yooyu fi ne ajouter de la musique comme ma xool benn vidéo fii voilà léegi mën nga jël vidéo bi euh, son bi rek ngeen jégal ma léegi son bi tamit war nga xam ñaata kii de fooraay bi ak yooyu nga bës fii pour wàññi fooraay bi nga def aperçu pour nga xool balaa ngaa kii gis nga voilà voilà wàññi nga wàññi ko bu baax pour mbañ la yàqal booy enregistré comme léegi boo defee nii aperçu voilà nga déglu day demaale ànd ak vidéo bi léegi nga bës fii mu enregistré léegi son bi dem na dugg naa dugal naa ci son léegi léegi beneen bis topp ko tamit pàcc yi si am solo mooy boo bëggee ajouter un sous-titre comme boo bëggee bind ci vidéo bi dara comme euh, da ngay xool tamit fan la war a commencer bu dee ci vidéo commencement vidéo bi nga def nii bu dee tamit ci ay 2 euh, secondes wala ay 3 secondes wala ay 20 secondes nga bës fii léegi boo paree bind fii nii. test 1 confirmer voilà Je confirmer mini test 1 Les vidéo film, vidéo test 1 de test 1 vitamine. bul comme nga de couleur bi voilà ok léegi loolu loolu moo nekk boo bëggee ajouter benn sous-titre comme boo bëggee jubanti nii wala nga bëgg def nii wala nga bëgg changer couleur bi tamit mën nga def nii. léegi beneen bis topp tamit euh, mu nekk tamit lu ci am solo mu nekk euh, image d'arrière plan comme comme euh, kii bu noir bi ba bëggoon mu deñ naka ngay def fi ngay bës nga gis nga mu nekk bleu wala leneen wala nga bës fii. waaw bés fii te tamit mën nga jël tamit sa photo bopp comme par exemple man enregistré naa benn photo fii ma jël ko def ko si benn photo bopp mën nga si def tamit loo mettre enregistré voilà. beneen bis topp mu nekk pàcc bu am solo mu nekk pivoté maanaam boo bëggee mu def nii comme gauche wala droite comme boo bëggee mu mel côté bi wala mu mel côté bi. am na tamit yeneen modification yu si nekk yu am am solo jëlal nga dugg rek di nga siy gis ay njariñ yu bëri. jërëjëf li moo nekkoon suñu tutoriel bu tey merci